réew mi yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te ngeen am ñu bootu ak ki ñi nga xam ne ñoo amee nguur gi aha ñun ñëpp ñu taxaw ngir jëmmi yàlla jéem a sabe Sénégal sabe suñuy bien sabe ñi nga xam ne danañu ñëw suñu gannaaw yàlla nañ ci yàlla defal dëggal gi kàddu rek mu ni yéen kilifa diine yi ak kilifa réew mi nañu xeex ci économique bi sobe suñu bopp sobe suñuy doom waaye sauver ñuy war a ñëw ëllëg lan la ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh teg ñu dimbale ñu dimbale leen yàlla dimbale ñu ñu xam ne amuñu benn bato bu dul Sénégal suñu adduna ak laaxiraa ci ñi ñu yaakaar a ci Sénégal suñu yaakaar a ci senegal kon lan ngay dénk njiit yi jéem leen ngeen góor góor not bakkan yi yal nañ yàlla dimbale ñu dellu ca nañu meloon àndandoo sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh lan la yàlla jaraloon yàlla jaral na ma senegal jaral na ma ñi ko dëkk jaral nañ ma lool te ni ci ni ci def jubóo. ndeysaan ak bëggoon waa réewam sacrifier sa dund ngir ñeneen ñi am jàmm. Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh lan ngay ñaan kilifa yi réew mi. maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ku bokk ku dëkk. ak kóolëre gi dox sama digganteeg yéen ak cofeel gi. ngeen taxaw rek la situation bi balaa yàgg yàlla ci yàlla dugal loxo bi. amin yaa rabbal alamin Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh billaahi damay géy billaahi watallaahi wa wallaahi su leen yàlla gënal leen seen bopp réew mi gënal leen seen bopp situation réew mi gënal seen bopp lépp dox bu leen yàlla gënalee réew mi soxlas askan wi gënal leen réew mi situation réew mi gënal leen seen bopp mu ni kon lépp dana dox Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh waxaatal billaahi damay géy billaahi watallaahi wa wallaahi su leen yàlla gënal leen seen bopp réew mi gënal leen seen situation réew mi gënal seen bopp lépp dox lépp dox gannaaw bi sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh tàllal yàlla ay loxoom yàlla yàlla na boo tas suñu yaakaar yàlla nañu yàlla delloo réew mi nañu ko bëgg ñëpp àndaat nekk benn senegal dox jëm jëkkanam kanam te itam yàqu-yàqu bi mi ngi dem ci diine ji dem ci secte yi dem fépp dem fépp Cheikh Ahmadou Mbacké Rafaay di doomi Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké lenn ci ay kàddu seede ci Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh moom musta noppi ci lu mu war a wax ndax ba ko yàlla joxee alluwa ba ko yàlla joxe alluwa si ahmadou mbàkke rafaayi dégg na baytu suñ tubaa bi muy wax ne fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu qabla al mamaati yubtala Seexul Xaadim wax ca lan képp koo xam ne daa xam ba ne góon ak xam-xam ne ba dem ak moom aha kenn jëriñu wucal waxuñu ëllëg waaye balaa faatu sax yàlla dana ko Cheikh Ahmadou Mbacke Rafaay Serigne Abdoul Aziz nga ni ku mat a lan la ku mat a jàngale la jamono rawatina ku yore lu ñuy wax ab yan kuñ yan nga yanu bokk yi moom mus sa nopp ci benn xew-xew boo xam ne lay xew ci réew mi rawatina nag loo xam ne day laal diine aha mas na fee jàkkaarloog député yooyee mu jàkkaarloo ba leen di wax ne xool leen loi yi ngeen di yóbbu assemblée yi ñuy indi assemblée ngeen di ko wote ndax loi wote fii bañ àtt ci jullit ñi bu ëllëgee da nga ko layoo ba yàgg sax mu def ko ab jël allah allah am te foo toll di ko dégg wallaay ndeysaan si Ahmadou Mbacke Rafaay kaddu yaa ngi nii assemblée bi def noonu bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet lan lay jural si digganteem ak peuple ak lu mu leen di jural amaam allah Allah Cheikh Ahmadou Mbacké Rafahi lan la Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh seede woon ci kanamu Serigne Abdou Khadir Mbacké seede woon na fi seere soo xam ne ci Serigne Abdou Khadir la ko seere woon mu wax lan nee na julli gii mu julli kero moo li xam Serigne Abdou jiite mu ne xaw ma julli gu ma mës a julli day di ci ñaaw njort di ci am xel yaar waaye gii moom wóor na ma ne julli gu ma sëkk la seen wax yooyu nag bokk yi mi ngi fi ba tey ana fu njaaroon ndax diw ku baax la ku baax a ko mën a wax ka koy wax makarimul axlaq ma ngi ca moom rëy nekkul ca moom kañaan nekkul ca moom soxor nekkul ca moom diw ku baax la rek li muy yomb yomb jërëjëf Cheikh Amadou Mbacke Rafaay waaye jërëjëf Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh keneen bokk ci ndawi Sénégal yi di Pape Djibril Fall yëkkati ay kàddu comme ni ko oustaz Alioune Sall defee ci séddalem ceeb mi xew ci dëkk bi man nag man bu damay wax ni aka ñoo juum ci seddale mi balaa ñu woon a jël ay ceeb di xëntewoo séddalee lu tax dimbali wu ñu woon sénégalais yi ci courant wu cher bi ndox mu cher mi ak dund bu yokk bi ma yaakaaroon ne ci jamono